kon ci boobu yi nga xamante ni day yërmande su borom ci jaam ñi di leer suñu borom ci jaam ñi xam lan mooy leer mi ngi mel ni mu lëndëmoon kër yi gisoo daaw la yaa ngi ci yoon woo xam ne ay kaaba ngi fi ay jaana ngi fi ay digg ngi fi lépp lépp luy mën rek mi ngi ci kaw yoon waaye am na fu mën a jaara foo xamante ni fu jub xocc na fu leerul boo xamante ni bu ko mën xam boo ñëw ci lëndëm kër gis yoo xam ne ay kàmbat loolu ñu waxee yooyu yëpp mën a fa waaye nag xamoo xam nga yow ay kàmb ngi fii te mën nga caa daal ay dégg nga fee mën nga koo joggi jaar nga fee mën nga ko daal matt na leer fenk wan la yooyu bi nga xamante ni soo ci jaaree doo dugg ca kàmm ga dib du la jam jaan du la mat ba nga yegg fa nga yegg loolu mooy yoon wi nga xamante ni suñ ci jaaree jubóog suñu borom suñ ci jaaree it jubóog suñu moromum jaam muy yoon wi nga xamante ni moom la ko suñu borom bi subhaanahu wa yónni mu jëm si ko ci jaam yi muy lislaam nga xamante ni bu ñu ci jàppee te wëccu ko sunu adduna dana jàkk sunu àllaaxira dana jàkk leer boobu mooy jikko ju rafet lislaam lépp mooy ko ju rafet ndax ni mu ko waxee ni suñu borom daf ko yónni ngir mu mott li jikko yi rafet yi lan mooy jikko ju rafet la ca jiitu mooy nit ki xam boromam xam ndaw boromam xam la mu yónni ndaw boromam mu nekk ci di ko jëfe ngir jëmmi borom kon yonent bi sallallahu alayhi wa li mu jëkk a jàngale mooy jikko nga xam ne mu jàngalee su fekkente ni jàngalee nañ ko loolu te jëfe ko sunu adduna la jag sunu alaxira dana jag jikko yi mu doon jàngale li ci njëkk mooy gannaaw wéetal yàlla ci jëmmam ci jëfam ci melokaanam mooy li mu waxee ne kenn ci loolu ak ngëmam du mag ndara bu mu bëggal boppam daf koo bëggal julit ñëpp waxtaan yi ñu waxtaane nag waxtaan la ci ëpp solo mooy nga bañ a yéem kii wax xam jaam rek la waaye la ñuy ca ay tomb nga ubbi sa te teewal sa xel ak sa xol ñoo ca doon fas ko yéene jàpp fas ko yéene jariloo booy dem naa ko doon lumpal boo xam ne ki da nga ko mën a jariloo te kooku sotti ko mën ko jariloo kon yonent boobu yi nga xamante ni tey soo demee ci maxaalifa liiraan sëriñ bi wax ni nag li ñu xeeñ ci woon ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ci ëpp réer na tegtal la ci ab jullit may faral di wax ni maa ngi dénk sama bopp te dénk mboolem jullit bi ñu déglu rawatina njaboot gi muy sama bokki taalibe yi waxtu bu ñu bëgg ko lu tàgg bu nañuy bu baax ba li bëgg ci ñun ñu nekk ca ku ca nekk lu nekk ca ku ca nekku tamit lu nekk ca te bañ a taxaw bañ a dëpp bañ a loo xam ne maa ci jamono boo xam ne it li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ku nëb sa diine danga mel ni ku nëb aw xàll ku ne xam ne ni nëb aw xàll métti na la moo tax mu wax loolu képp koo xamante ni yaa ngi dund diineem ni ñu ko baax ni nga xamante ni ñu baax ñu njëkkoon ñoo ko doon dundee lool sax yow dañuy defe ne yow mii doo mën na la sax ba jàpp ni sax yow da ngaa wuuteel noonu ab pas-pas loolu koy xam dafay am waxtu la te ni bëñ bi ma tàmbalee bi nga xamante ni sëriñ bi da ciy muslu ci yàlla ci jàng lu jëm ci lu yàlla gën wut wala jaww jëm ci loo xamante ni bukku tëkk yàlla na farataal ci moom te farataal ko ci jaam ñëpp waaye daal na sunna te jaaree ci Rasulullah sallallahu te jaam ñëpp war caa loolu nekk loo xamante ni duñu war a xel ni ñun ñëpp ci gipp anam bu mën a doon yonente bi bokk na ci ñi ma doon jàngale wattandiku réew ci sa mbokkum julit waaye ci keneen ku ak julit ci anam bu mën a doon ndax réew boo ko xoolee la koy sàmm rek mooy gis sa bopp moo xam ci judd la moo xam ndax ci ay la moo tax ndax ci xam-xam la loolu lépp loo ci seetantal rek da nga xam ne mënuloo ci sa bopp lenn ndax bu dee judd la tànnaloo sa bopp foo juddoo keneen te nga koy xeebe ngir ab juddoo tànnalul boppam fa mu juddoo bu dee ci xam ne danga koy gërëm waxuma ko nangu te bu ñu xoolee jikko yooyu nag lépp lu yàq adduna rek ñàkk la boo jikko yooyu mooy ko yàq nit ko am lu baax nga ne lu tax ma am ko noonu nit te doo ko teg fenn suñu waxee naan daal def ma neexul rek man daal foofu lu tax waaye daal neexuma rek te doo ko mën tegal benn illaa loolu ak jaam ci anam boo ko mën di jëlee moo xam yàlla jox ab taar la dénkaane la boo xam ne ci ay loxo la ko suñu borom jël indi ko suñu loxo jël ko ñëw ko suñu loxo yóbbu ko ci yeneen képp koo xamante ni nag noonu nga nit suñu borom bu te képp koo xamante ni nag nga xéewal suñu borom bu defal ci coono la dëkk ci fitna la dëkk ci naqar lay dëkk kon fa nu toll nu ñu yéenante jàmm te yéenante ak yiw te boo seetloo loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu jàngale lépp day lépp lu yàq adduna rek ñàkk tënku ci am njàngale moo ko teg ndax léeg-léeg day nga gis koo xamante ni fa mu liggéeyee ma ngay liggéey nag war a liggéeyee ko sant mu war koo liggéey ba ngay liggéey loola waaye da gis koo xamante ni loolu boo ko rawoo dana tax mu ñëw yàq ab jaram ci fa mu liggéeyee ngir bëgg place ko wala ñu xañ ko wala nga gis ku ñu ci loo doo ko teg fenn ngir lan ngir bëgg koo xañ yow muy am akus ñëw ci teraangaam loolu lépp ku gëm yàlla ko bokkul ci màndarga ak jullit ak jullit lépp loo xamante ni moroomam jullitam am na ko dafa koy yéene ba mel ni moo ci wàllu boppam moo ko am kon loolu ñun ñëpp war nañ koy bàyyi di bëggante di ñàkkaroo waaye bokk na ci li mu doon jàngale seen jëf nga bañ ko ñàkk a seeroo seen jëf pour yàlla te léegi nag bàyyi waa ci loolu koo xamante ni ñaari jëf ci lu baax lépp ko ci lu baax nit bu jiituwul mën na yàq mbooloo bu ñu koy jox ak cër yàq mbooloo ndax lan ngir njariñal boppam ak darajay boppam loolu rek mooy la koy tax a jóg ci lu a doon te mu lépp léegi ki nga xamante ni dafay jëf te jëm yàlla tax su fekkente ni dégg nga jàngoroom ki feeñ ci guddi gi mën nga xam ne da nga fexe ba booy jëf lu baax sa loxo ndeyjoor bi koy jëf bu ko sa loxo càmmooñ loolu moo leen ko kenn la ku الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون mu ngi ñuy dénk ñun ñëpp nu sax ci ragal ragal yàlla bokkut ak taqwa bokkut ak xawf taqwa mooy lépp loo xamante ne dana sax dana sabab meram suñu ci pas-pas ci kanam bi ci jëf nga wattandiku waaye lépp loo xamante ni dana sabab ngërëma yàlla ci fas-fas ci kat bi ci jëf nga nga nekk ca te bañ caa benn waaye bàyyi loolu xel kenn ku ci nekk lañu jiital ci ëllëg muy mu ñu takkee ay tànkam ak loxo war koy yor ci bàmmeel bàmmeel boobu suñu borom ñu koy bàyyi loo xel wala tan su ma xaaral ma di xadim kenn ku nekk day bàyyi xel li muy jëf ngir ëllëg. bu dajeeg boromam subhanahu wa loolu defe naa ne su fekkente ni mu ngi teew ci xolu jullit bi fu mu toll mu di ko teewlu lu bari dana mën a rot ci moom te bu bàyyi xel ni jikko yi ñuy waxtaane nit ki lu mu mën a mën a julli lu mu mën a mën a woor lu mu mën a mën mu a mën a tudd yàlla te jikko yi nekk ci moom muy rëy ak ajaar ak ngóor ak ngistal ak wax lu dëgg ak jëw ak rambaaj yàq diggante jullit ñi sunu borom ci ni ko ki feeñ ci guddi gi nettalee du am ca borom jëf jooje soxla du am ca jëfam jooje di soxla kon nit ki liy tax ak ngëmam yàlla mel la ca gën mooy nangu dogalu sunu borom subhanahu wa ci sa jëmm ci li wër ak ci ñi nga xam ni amut lenn luñ am ca loolu mukkut ci kattanu suñu borom ak xam-xamam ak nammeeram suñu borom noppi na ci lépp noppi na ci ñëpp noppi na ci fépp mi ngi meloon ni rek adduna lu mel mi ngi mel ni kaset boo enregistré fii ku ko fekkiwut xamul la ca nekk gisu ko nga di ko ko tegal ci biir kaset ba bu amee lu ko ca naqaay neex ba mu defee ne ci biir xelu boppam kaset bii ñu biir seetaan bi ñu seetaan te gisagul na loolu te lépp mu ngi ci biir kaset bi la ko ci naqari su koy wax wala mu ne ci xelam ba mu defee war na ko a soppi ndax na boppam ndax kaset bi enregistré ba noppi te lu mu def mu kaset bi bindoo mu nangoo ko loolu dara nga am mbégte mu rëy ndax ba keroog kaset ba mu jeex lañ ko enregistré rek mooy feeñ waaye lu ko ci naqari mu di ko xalaat ba mu ko waxtu làmmiñam du ta ñu ci enregistré woon kon yëpp day nekk yoo xamante ni buñ koy settantale danañu gën a xamal sunu borom bu baax sunu borom noppi na ci ñun ñëpp ان درجة جاء تكيون نون جو أنا أنا أنا تخلى لك من نتبرع دعنا نحسبه نحن لنا من بس بما سيدنا من سورة الأرض أن يتعلم الله لولا ما قرأت واحدة ولا ما قرأت إناسبة غدا من ولا ما كنت أمر سوكي تبير دير نحفظ لنا أرسل من قبل أدنى لنا قصون برام سبحانه وتعالى بنا lépp noppi na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne xalima gi fenn na nit ki ni ko suñu borom di bind bind na ko ko ba noppi ni muy mel mel nañ fi muy juddoo fi mu nekk ku xas juddu ni nga mën a xam ni mënoo téye wax wax wax wax wax wax wax bu judduwaat ci yeneen ñaar yooyu ñu bokk te ñaar yooyu li la jóg yeneen li ca toog lépp loolu la def kon boo ca yeewoo nag da nga daal di mën a rafetal sa diggante ak sa borom da nga mën a daal di rafetal sa diggante ak sa borom ndax su fekkoon tamit adduna képp ku añaani nit pexe mu def mu mën a def ba la xëyal gën a ci yow moo xam lu mën a yor moo xam taal la moo xam xam-xam la moo xam alal la moo xam dara ne bu la yàlla dox na ci ëpp la yoon bu mu defee ne bu ca jaaree loola ba mën a dégg rek ndax na boo xam du mën ndax dafa fekk loola suñu borom noppi na ca bu yàgg kon lay gën mooy nga bañ a waaye lépp xamante ni suñu borom bi ko ab jaamam nga nangu ci ndax kat loo def lu dul lool da yokk sa bopp fitna ak coono. ndax dafa mel ne muur woo jëmm jooju waaye sunu borom bi subhanahu wa taala moom ci boppam borom te boo xoolee ñu yàq adduna ci bare bare bare bëgg daraja muy wéy boobu yi nga xamante ni moom la sëriñ bi wax ci message bi moom dafay yàq nit ki rëy da yàq nit yeneen xeeti jikko ci des yëpp nag jëf la yàq waaye wéy moom bu xasee amoon da yàq nit ni nga xamante ni wéy ni mu alage suñu maam ni mu alage subhanallah iblis ngir añaane boobu añaane sunu maam aadama iblis moo nekkoon jëmm ji gënoon ci malaayika yi lay wax waaye rëy moo ko ca rëkk ba yóbbu ko muy ki gën a suufe kon rëy kenn ku nekk ci lu war a koy ko bul jàpp ne yaa gën kenn bu mu ci sa jubbi bu mu ci sa alal bu mu doon ci sa njaboot bu mu ci sa taar bu mu ci sa xam-xam ndax lépp luñ ca doon suñ borom moo ko defal muy ànd ku gëm yàlla bu mot ndax nit ki ñaareel su bëggee daraja su réeroo dafay daal nekk bëggee daraja añaan dana ko dugg ndax képp koo xamante ni yàlla moo koy darajaal te xaw a ba mu bëgg a tolloog darajaam da koy añaan ndax bu sañoon moom mooy wéetoo ca yooyu yëpp mooy wéetoo ci réew réew moo ca yëpp mooy wéetoo ca yafa yàlla joxal yëpp ba mu gis ca boppam bu sañoon keneen du amee la te suñu borom nag kenn ku ci nekk lam bind ci yow na ñi war ci lu càngee nit ki ko añaane foog ko añaane rek yàlla dindi ko dangay gis léeg-léeg nit ñi yu bari yoo xam ne dañ cee seen bopp di ca sonal seen bopp loolu lépp ñàkk na nga dogal yàlla ak ñàkk xam yàlla ndax tey kat su fekkoon tamit koo noonu wala koo añaane lan ko añaane yàlla daal koy faral fa saasa kon kenn du dund lu ñu ci kaw suuf ndax ku mën di doon rek koo gis mu ndox rek am na ko añaane na la ak ku mën a doon rek ndax kulli si ñaramatin maxsuud ku am dara rek ci xéewali suñu borom yi rek am nga ay doon ak koo mën a doon rek waaye li gën ci jaam bi mooy muy dellu ci yàlla xam ne yàlla mooy indi séddale yi kenn ku ci nekk la nga am suñu borom moo la ko jox ci cooree nga ànd ak bay ànd ak nangu doon ci sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala muy ñaan sunu borom bi jikko yooyu ak melokaan yooyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana jàngale sunu borom bokk nu ko defal ñun ñëpp ndax loolu mooy tax nit ki am ak dal fii ci adduna waaye moo koy joxe ëllëg yawmal xiyaam ak texe gu mat sëkk ndax texe kat fii lay tàmbalee ci adduna njëkk nit ki di dem àllaaxira xol ku texe ni mu mel koo xam ne mbooleem jikko yi ñu fi waxtaane yépp benn tomb rek du nekk ci moom nit ku doy lay doon ci adduna du xër mukk du bëgg dara ba mukk du rëy mukk ndax su fekkente ni ci dara yow soxla woo ca dara nga ca ba set wecc da ngay daal di féex doo gis kenn ba añaane ko doo gis kenn ba koy ngir mbagg yooyu yëpp doo doo ko def ndax yow yooyu yëpp soxalu la ndax boo yem ci lu ma man di am kat lu dul sa bind indaale woo ko ci kaw suuf te booy dellu it lépp fi nga koy bàyyi su dee ab taar moom ngay wanale moo tax nga jàpp ni ñoo gën kenn xaaral sa bopp ci ñetti fan bàmmeel bu ñu ne sumee kenn dut la mën a tey